ñaata nit ñooy dee par jour. Euh, ñu revenir tuuti rek euh, ba tey rek suñu mbirum troisième mandat bi ñu gis ne euh, aussi le président de la république Macky Sall bañ ko mujjee woon laaj mm. si wàllum troisième mandat bi dafa wax ne ne du wax nii oui du wax nii no donc est-ce que yaakaaroon ni virus troisième mandat bi nga xam ne mu ngi sévir un peu partout si pays de l'Afrique de l'Ouest dem ba baram dugg si fii Sénégal mais xam nga moom laa la expliqué sànq actuellement peuple Sénégal bi ñoo war a jóg Macky Sall daf ñoo yab. lu tax respecté wuñu ndax mënoo taxaw expliqué ne non man man jeexal naa man maa ngi wax ko ba mu leer man dootuma dool yi jeexal naa après nga dem ba ci biir ñuy ruumanaat ñuy ruumanaat xam na conseil constitutionnel xam nañu ñoom Macky Sall dafa def ci poosam ñun xam nañ ko. ñun nekkuñu fi di xaar conseil constitutionnel parce que defoon nañu ko defaat nañu ko parce nit moom lu la gaañ daaw gaañ la ren déwén justice boo xamante ne nii tey euh, monsieur monsieur le ministre moom mooy seen kilifa te kilifa bi monsieur le ministre président mooy kilifaam loolu moom pouvoir judiciaire moo fi nekk di bum di bum muy président amuñu au am na si nag ñoo xam ni dañuy am ñu position bi ñu am la mais dama lay wax lu leer tey conseil constitutionnel day xëyaat taxaw ni Macky may nañ ko beneen mandat defaluñu ko Abdoulaye Wade Macky Sall taxaw moom si jëmoon di ko xeex que la constitution a été très claire nombre durée mandat ak nombre de mandat yi daf cee leer nañ donc kon tey ñun am na yoo xam du détail waruñu ci nekk sax du di expliquer mais bi ñu ko laajee ne ko Euh, détail la bëggoon wax bu ñu ko laajee ne ko. Hmm. lan ma léegi est-ce def deuxième troisième maanaam la wax man ban moo la ne wax oui du wax loolu la. mais a raison parce que a donné euh, la ñu nekk di def euh, ñu féetoog moom dañu liggéey côté ko ci daa na nangul aussi Abdou Karim ah. lan kon y problème xam nga kon ça veut dire moom même ñi muy liggéeyal wóoluwu leen kon nag ngay nekk président am ne amoo confiance ci ñoom kon y' a problème foofu la gën a dangereux mais mais Abdou Karim bu ñu xoolee euh, événement M23 yi nga xam ne gis neen euh, wàllum tripatouillage euh, constitution moo taxoon jeunes yi wàcc si mu gis ne y avait des jeunes yoo xam ne sax ñàkkoon neen seen bakkan ak ainsi de suite le président Macky Sall bokkoon sa ñi nga xam ne ñoo loon xeex wàllum tripatouillage institut lii nga xam ne mooy constitution bi keroog maa ngi déglu na sax ne moom wàllum turi M23 bi sax kii di président Macky Sall moo ko joxe woon ay années ñu ngi si deux mille vingt ñiy waxaat wàllum troisième mandat est-ce que loolu du ñu aussi ñi nga xam ne ñoo deewoon si wàllum euh, événement yooyu non loolu loolu moom bi soo ko xoolaatee sax day fa metti quoi ça fait mm. gis ay nit te ñun ñëpp ñu ngi woon ci mbedd bi ah mm. di wàcc di xeex am na ci Mamadou Diop bi muy décédé bi maa ngi taxaw maa ngi taxaw ni c'est-à-dire pour wax ne ñun ñëpp ñoo nekkoon ci mbedd bi di xeex mm. on était di di xeex di rey suñu bopp nga dégg diw dee na fii lu nekk lañ daj po Abdoulaye jóge fi mm-hmm. mais jàngat bi ñu si am mooy sénégalais ñoo war a conscient ni ñun dañu war a fexe xam nga Abdoulaye la moo tax ñun ñun ñu doon xeex di réussir combat bi. Mm-hmm. Abdoulaye dafa nekkoon koo xamante ne doon accepter ay manifestations. après y avait la France derrière les mouvements après on a compris ça tout trop tard y avait Abdoulaye avait ay problème ak tubaab bi dàq armée française tubaab bi jàppal ko tam. Mm-hmm. multinationales yi muy fexe ni leen tindee jël yenn place yi jox ko armée bi jël armée française dàq leen ak yenn affaire tubaab bi teg doomam commencé def les médias yi di ko jàppale ci di jàppale tubaab yi si loolu parce que tubaab yi système bi médias yi daf ci bokkoon tey tey ay TFM yi yenn télé yoo xam ni bu ñu musaan ne benn waay bu nekk fee ci côté Abla daalam réer na sax TFM def ko direct filmer ko nii léegi demal nga taal dëkk bi bay bëgg a dee kenn du ko wone xanaa Mali lañ ñuy wan Mali buy tàkk ah mais ba tey na avocat bi je suis pas d' accord. non média yëpp ñu ngi def seen liggéey ni ko war a defee. non non muy TFM muy 2S muy Sen TV muy RTS non non non journaliste gars yi ñu ngi def seen liggéey non comprendre naa la. média yi moom bi leen war ko waxul chapeau rek waru waru leen sànni xeex. média yi am na si ñoo xam ni. parce que ñun déjà dans l' exercice de notre métier sax da ngay gis à chaque fois ñu ñuy menacé ñu ngi kii ainsi de suite donc. Euh, les journalistes démb maa ngi koy wax démb démb maa ngi koy wax man am na dafa am ñoo xamante ne dañuy yeete am ñuy yeetalaate bi tey mënoo wax wax ba amul journaliste yu yeetalaati. déedéet journaliste yëpp dañuy yeete non non non organe boo dem organe boo dem dafa am benn ligne boo xamante ni ñii dañuy xeex ak état ñii ñii ñii dañuy xeex dañuy jàpp ñii dañuy xeex askan wi. non je suis pas d'accord loolu est xaaral ma yegg rek xaaral ma yegg rek xaaral ma yegg rek xaaral ma daaneel rek. <laughs> loolu loolu du dañ bi am na nag ay nit yoo xam dañu nekk ci organe am ful la kenn du leen wax lan la ñuy wax lan la ñuy def am na quoi nga xam ne buy waxee nga xam ne kii. Mhm. moom daa am ful la quoi kenn kenn du ko tegal programme boo xam moom lu mu gëm lay wax day défendre en tant que journaliste am na da koy xam xool ni kii ko am ful la. Mhm. mais yaa ma gën a xam ni média yi nekk Sénégal fii nii ah ay TFM ak yenn média yi bari ah, non TFM dama leen ñambaasaat bu baax sax non ma ñambaasaat ko sax xool non xam nga laa leen tuddee woon tere faral mag yi TFM non non ok li ma bëggoon expliquer mooy dafa am ñuy yeeta ak ñuy yeetalaat uh-huh. léegi nag ñun ñun ñoo war a fexe ñu fexe ba expliquer sénégalais yi. Mm-hmm. ñu xam ne dañoo war a jug jàkkaarloog Macky Sall wax loo ko mu wax. Mm-hmm. mu leeral sénégalais yi ne leen man du ma def beneen mandat parce que xam nañ ni conseil constitutionnel ñoom dañ fay nekk rek waaye nekkuñu fi. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi dégg baax la bañ fi nekk ñu am yaakaar ci ñoo xam ne def nañ ko ci Abdoulaye Wade. ci wàllu bokk nañ ci ñi ko rek. comprendre nga ci la dëkk bi tàkk. tey Fodé Ndiaye policier bi deewoon bu deewee bu tey conseil constitutionnel bi bokk na ci li ko tey parce que ba ñu validé candidat Abdoulaye Wade ci la dëkk bi tàkk donc kon ñooñu waruñu leen yaakaar wala ñu leen xaar di am confiance ci ñoom xam nga ci la ñu war a def ñun am confiance suñu bopp teg pression président Macky mu taxaw ne man du def beneen mandat sinon peuple sénégalais dañu war a préparé wu à ce jug bañ xaar opposition bañ xaar kenn bi parce que jeexal na. ñu génn tuuti ci euh, euh, politique bi Abdou Karim ñu wax fait de société ñu gis ne euh, fan yi ñu weesu ay ONG yu mel ni ay Jamra ñu ngi jóg di dénoncer yenn ci ay téléfilm yoo xam ne dañoo jàpp na rek dafay yàq lii di ay suñu ay valeur ban lecture nga gis fu mu toll nii explosion téléfilm yi nga xam ne am na au niveau du Sénégal ak yenn yi nga xam ne yenn ONG yu mel ni Jamra mhm. di leen di duut baaraam ne dañuy pervertir la société. Ah, est-ce que aussi c'est pas exagéré benn instant. kan moo euh, <laughs> oh, <laughs> ma <laughs> euh. bokk si euh, xam nga man collectif noir mm. de défense des ay ñoom professeur Cheikh Oumar mm. yi ligue des man ñooñu laay àndal sax boo seetee. après ñu def ko euh, non à la non à la après ñu jóge si ba léegi ñu ngi si loolu sax quoi. Mhm. ñoo dañu créé benn même tijji jàkka yi dañu tijji woon benn dañu créé bu tuddee leen jàkka yi. c'est-à-dire ñun mhm. <laughs> côté diine bi moom maa la wax la boo ciy laajee ñëwal ci man bul sonn. Uh-huh. mais xam nga man jëm me dis que ni. Euh, def nañ ko fi ak yeneen film yi quoi am na doon mhm. nañ fi kaas ak yeneen film yi ay doon kaas Pod et Marichou suba ñu kaas ne non dafa am dafa am ay ne noonu lii dafa am côté yoo xam dafa vraiment est-ce que yow nañ la teg fii ci bërëb bii ngay liggéey ñu lay fay weer ba noppi di xaar li ngay liggéey ñu defal la ko mais loolu yan woon maanaam sa patron moo lay daax daan bi tey xam nga la toogal kër ga parce que man mënuma tamit di la fay pare di defal loolu li mais général lan lay jëriñ général daal ñoom dañuy jël contribuable di leen ko fay quoi au nom de l'État du Sénégal ñu ne fi te amuñu benn njëriñ quoi film yi chaque fois ñun askan wi ñooy ko dem censuré ko dem porter plainte mais mais Abdou Karim bu ñu xoolee ne euh, film yi ñuy seetaan euh, si euh, bouquet bi ay telenovelas nga xam ne dañuy jël di koy seetaan ak suñu famille yi nga xam ne mun nañu wax ne tubaab yooyu ñoom lu ñuy def ñun hmm. suñu ay acteurs. fii nii xalaatuñ sax yeggaguñ foofu. ñu yegg nañ fa de. na non non non yeggu yeggu. gisoo film yi xanaa gisoo film bi est-ce que tamit aussi euh, benn euh, instant benn acharnement aussi sur ces téléfilms te aussi bu ñu xoolee ne téléfilms yi aussi mun nañoo wax ne il faut pas qu'on se que l'on bu nekk ci réew mi rek la ñuy la ñuy fësal. waaw mais xam nga fësal xamuñu luy suñu problème euh, foo dem ci àdduna bi. am na tout en sensibilisant mun na leen ko nangul aussi. bi foo dem ci àdduna am na ñuy def lu baax am na ñuy def lu bon foo dem nag demal fu la neex màkka demal màkka am na ñuy def lu bon mais xamuñu suñu xeex lan la mooy ñuy def lu bon ñu nëbbatu. bañ ko fësal kenn mënul tere àdduna am lu bon fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mais nañ ko nëbb la Souleymane Faye waxoon ne li ñu fi bañoon bañ moo fi ne ba tey yonante ba mu fi nekkee jamono ay jamonoom sax ñi ñaa ngi def lu bon. mais est-ce que nëbb boobu mooy dem ba. réeral cest à ma ne la euh, nëbb xale yi. non non du réeral suñu ay doom bu ñu bañ a xam ne lii boo defee lii lii moo la ciy fekk parce que téléfilm yi peut-être les les images peuvent choquer ou bien les mots peuvent choquer mais aussi dañuy euh, yeete aussi di xam ne lii waroo ko def boo ko defee lii la lii moo la ciy fekk aussi lii boo ko defee da ngay loru lu tax mu war a yegg ci loolu carrément ba nga ne ci duut baaraam waa parce que image dafa am solo non non une image vaut mille mots loolu kenn werante wu. mais dama ni il faut nga comprendre baax fi may waxee dama ni la. tey bu ñu demee ba télé Sénégal di wane jigéen mu toog di wane yenn cëram yi di wane ay naan dafa indisposé di wane ngeen baal ma ci yenn baat yi may wax nii. Hmm. loolu y' a problème yaa problème bu ñu demee ba teg film boo xamante ni mooy ak mbon la tudd ak mbon xam nga ak mbon mooy inf mooy mooy mooy mooy infidèle infidèle loolu la signifie ak mbon mu amul benn définition bu ñu demee ba teg ko di ko promouvoir defal ko ay panneau publicité ci biti mbedd bi toog di ko promouvoir di ko di ko c'est-à-dire dama bëgg wax lan lan lañ siy jàng comme leçon amul benn cest à rek la c'est très simple man bu ma fi porté plainte porté Marichou dama dem dugal na général dañ leen woo bi ñu leen woowee film bi dañu ne léegi lu ngeen di tiré rek lu ngeen di joué lu balaa muy dugg rek dañu ko indi ñu xool ko. Mm-hmm. mais en tout cas non xaaral ma yeggali bi te uh-huh, uh-huh. léegi loolu nan la mën a nekkee ba pare te ñoom continué wuñu loolu ba film bi génn ba si fi ñu yegg nii. lu tax Sénégal defuñu liggéey boobu foofu laa doon waxee yow. Mhm. tey tey jeunesse sénégalaise beeg population bi ni ñuy doxalee seetaan nañuy seetaan ci xew ci dëkk beeg télé yi ni ñu nekkee doxal nañu nekk yëpp kenn mënul tere duñ ko def mais mun nañ ko gérer état moo war a jël responsabilité am Chine dama fa pare-feu xam nga la mooy pare-feu tey boo boo tapee am na yenn ci yoo xam boo ko tapee ay x ay porno ay yooyu du dugg. Mhm. am na âge yoo xam xale bu ko amee du am accès si yooyu yëpp te même mag sax du ci am

Abdou Karim li nga wax certes euh, am na ay euh, part de vérité dara munu koo tegg mais bu ñu gisee ne euh, ces films yi nga xam ne ñu ngi koy dénoncer un peu partout dugal ci YouTube bi tey mun naa xam am peut-être man a yow émission bi ñuy def euh, peut-être euh, benn deux vues la ñu am wala 1000 vues. Mhm. mais émission yooyu nga xam ne euh, gars yi dañuy wax ne dafay pervertir la jeunesse en moins de 24 heures da ngay gis ne des millions de vues. ñoo koy xool 100000 vues. 80000 mhm. vues 500000 vues. Mhm. donc au final est-ce que nekkul la population moom moo bëgg loolu aussi. non c'est-à-dire a problème gis nga wax boobu gars yi xam nga xam nga nit ñi dañu war a bàyyi wax boobu xam nga lu tax bi. àdduna xam nga ko yàlla bindee nga baal ma ci baat bi ma lay expliqué nag. ñu baal ma tamit boo rombee ay xar yu tëb di nga leen seetaan doo leen xool boo rombee ñaari yu nekk ci mbedd di di di di di sëy nooy def mais ak noo def même su fekkee bëggoo ko xool sax di nga ne waaw c'est-à-dire di nga dina def dina am def si yow. sax dafa loo xam ne yàlla moo ko bindee àdduna. léegi nag nit ñi dañuy wax ay non nit ñi dafa mel nii lañ gën a bëgg mais kan lañu topp kañ lañu daan topp nit ñi ak ci li ñu bëgg bu ñu daan topp nit ñi ci li ñu bëgg est dañuy taxaw di indi ay ay ay loi nan bu laal lii bul dugg fee bul génn fee bu ñu doon topp ñu ñu si kon nii diine dina ñëw ñu ñëw indi bible prophète yonent Yàlla Iisaa ñëw indi bible est-ce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ñëw indi téere naan bu def leen lii ku sàcc ñu def leen lii ku def parce que dañu dul topp bakken nit nga am nu ko yàlla bindee muy bakken bakken nekk loo xam bu la ëppee doole yaag mala yi yéen yam alxuraan da ko wax nit day dem ba ba gën a tuuti mala mais foofu la àdduna bi toll nit ñi ñoo dem ba parce que ni ñu ko danga nga ñëw gis benn artiste boo xamante ni li koy def artiste mooy parce dafa wane woon taatam ngeen baal ma ci baat bi mu nekk une grande star après